Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. taala wabarakatuh mbokk yi ma ngi nuyu leen ziar bu baax di wacce ku nekk wayam di leen wax ne wax deug neex yalla comme ni ma leen kay faral di tam di waxe chaque jour rek ñu ngi sant di gërëm di gërëm yalla itam yalla mi nga xamne ne tax tay ñu am jot am wër di ñew chaque jour fi di séddoo ak yeen xam-xam xam-xam bi nga xamne tay buñ ko xamé rek yalla moñu ko defal. du suñu mën-mën du suñu daraja du suñ dara ay jaamu yàlla yu xeebu leen comme ni ma leen ko faral di waxee rek toujours ndaxte dama aadama booy jëflante ay nit da leen wax dëgg man du ma sëriñ duma ma koo xam ne damay toog di woote sëriñ am na ñu may woo dama leen koy wax aw ma fenn foo xam ne dama fa nekk pour nit ñi dama fa fekk wala yu demee noonu ku am daal yaakaar ku am yéene ku am si man yaakaar. ñu àndandoo ñu ñëpp yaakaar yàlla dinaa fexe ni may def daal ba dimbaleen teek yéen si côté boobu waaw incha allah loolu moo tax ñu si bari ma koy leeral rek pour nit ñi mën a xam euh, loolu benn la ñaareel bu mooy dañuy am ay appel wala ay message yu jëm si ay doomi aadama yoo xam ne xam naa nag dañuy yëngatu si wàllu sëriñ xam naa loolu noonu lay demee rek waaw dañuy woo du ñu du ñu du ñu wax lu nekk war leen jël xam-xam di ko wasaare war leen jël xam-xam di ko di ko di ko joxe nii nangam nangam lu nekk ñu wax di la euh, napp ñii dañ lay tëkku di leen wax rek ne la ñooñ ñoonu noonu ñoo jar a moytu ndaxte tey ñoom ñoon di woote sëriñ yow nga toog yow joxewoo xam-xam dimbaloo doomi aadama yi nga xam ne amuñ moyen yenn say sax pour mën laa jox dara pour nga dimbale leen waaye yaa leen di dimbale si seen yitte buñ amee yitte tuuti rek mën naa faj seen ay soxla yow nga taxaw ne loolu di fi amee léegi daal nay ñëw di ñëw nga leen di nax di lekk seen xaalis si loo xam ne amul benn njëriñ loolu képp ku koy def war ngaa tiit sa àddina te àddina war ngaa sóoraal ëllëg sa tëraayu bàmmeel war ngaa sóoraale ne lii yëpp dafay jeex ëllëg da ngay jàkkaaroog sa borom dégg nga kon nag ku fi toog fii tey di napp nit ñi naan ay ni ngeen def nii nangam nangam nangam yow moom yaa a defaraat sa toogaay ndax ñun li ñuy def dafa ñu ne jàppuñu am na ay secret yoo xam ne kenn du ko joxe loolu moom dañ koy wéral am na ay secret yoo xam ne kenn du ko joxe te man du ma du ma saa ma joxe dara daal leer na ma ne lii bu ko doomi aadama bi defee dana si gis ndam waaw te mënuñ fee nekk nag di sóoraale nit ñu bon ñi ndaxte ñu bon ñi ñoom bon neen ba pare waaw ñu baax ñi ñoo tax ñuy def ñun ñom leen bëgg dimbalé ñom nyi leen bëgg jappalé ñi ñu ngi am problème mu gi yaram ñu bëgg leen dimbalé ñi ñu ngi am problème euh, dépenses ñu bëgg leen dimbalé ñi ñu ngi am problème couple nekk ki nga bëgg wala nga nek sa jëkkër sa jabar digënté bi neexul nga bëgg si euh, tawfiix bëgg si jamu am ci ndax bu si jamm amé rek néna leen ba tay ne problème bu amé si ñaari nit du yam ci ñaari nit ñooñ même ay magal rak sax buñ merooyee am ay jafé jafé duñ wax duñ tudenté bu ñu amee doom dañuy dem seen doom yi sax noonu la ñuy mel parce que duñ demlante duñ dikkalante loolu nag day xaajale ay famille kon famille lu ko boolee moo gën di ko moo moo gën fuuf fuuf lu koy tàqale moo tax ñu si rey suñ bopp di si def suñ kéem kàttan ndaxte ñu ñi di wax dañoo bokk si famille am ay rakk am ay mag am ay yaay am papa te buñ sañoon itam ni ñuy dundee man boog ni may dundee bu ma sañoon noonu la ñëpp di dundee ku am say rakk ku am say say am di jàmm nga jub ak ñoom. seq ñoom jàmm dund ñoom teraanga te xam ne àdduna bi passage dañuy jaar jàll rek ñun ñëpp dégg nga kon na rafet man sama kim kàttan foofu laa koy def ma lijjantiwuma luy nit di wax ku ma woo daal wax ma luy jariñ loo xamante ni seetoo si intérêt bopp dana la déglu dana waxtaan sottiwante xalaat mais koo xam ne sa intérêt rek tax ngay woote sa rek tax ngay wax ñun dafa a jàpp ñu xam neen koy waxee intérêt xam neen koy waxee itam si bànneexu bakkanam waaw ndax tey jii nii tey koy woo tey di ko di ko wax yooyu moom moo la gën a xam ndax lii engagement bu ma jël la ne lii dama kaa jub pour def ko pour dimbalanteeg jaamu yàlla yi kon nag kenn keneen bu ñëwee fee boo ma dollilut ci li may def kon na nga màndu si waaw ndaxte am na xam ne amuñ sax xam xamuñ dara dara dara xamuñ ko nekk di nax nit ñi rek nax nit ñi rek rek rek rek mooy seen métier xamuñ dara dara dara waaw ndaxte am na ñoo xam ne bu ñëwee wax ak yow. gis na faale woo leen ñu mujj di la ñaan ay secret nawet damaa bëgg nga may ma secret may ma secret nangam nangam te ñoom ñu ngi woote woon ne dañoo xam dara dem si tele yi dem si fu ne ñu dem toog kon nag nañ bàyyi doomu aadama yi jund si jàmm yéen doomu aadama yi itam ngeen am xel ngeen dal ku ngeen dégg rek ku ngeen jug rek dem def fa seen xaalis def seen yaakaar loolu amul njëriñ dégg nga àddina da ngay dal da ngay teey da nga xam ne loo fi leble da nga koy fayeku di def lu baax si jàmm yàlla yi di am lu bon di am fenn. waaye di tam di def lu bon si jaamu yàlla di am lu baax tam du am fenn kon def lu baax moo solo loolu nag dama ko doon ubbee rek pour waxtaan leen pour ngeen xam ne am na ñu baax am na ñu bon am na ñu fi nekk nekk ay abonné ne fi nekk ñu fi dara dara dara lu dul yàq waaw man nag am na ñu may woo am na ñu may pa xam naa ñu ngi seetaan moo tax ñu may ñu ñu may woo képp ku si jël sa crédit di ma woo wala nga jël sa sa sa sa whatsapp di ma envoyé message bu fekkee ne may woo jël sa crédit di ma woote waxuma dara luy jëriñ dama lay coupé bu fekkee da ngay yëm nga yónnee sa message di wax ay wax yi kenn xamut dama lay bloqué man lu baax ma tax a jug lu rafet lu jub nekk mu fi ay affaire caaxaan aw ma temps temps bu may toogee di waxanteeg nit ay wax yi ñàkk fayda aw ma temps boobu dégg nga man nit ñu baax ñi ñoo ma tax a toog nit ñu am njëriñ ñi nga xam ne nit ñi dañuy jëriñante suñu biir di waxtaan nit mën na ma woo ma yoo xam moom quatre heures de temps yoo xam ne du ma si taay ndax li ñuy wax dafa am solo. waaye nit woola la dara bu am njëriñ lu dul rek ay ay luy lu jëm si yàq rek man aw ma jot boobu kuy yàq bul ñëw si man kuy critiquer ay critiquer yoo xam ne si intérêt bopp moo la si taxat mooy tax ngay wax bul ñëw si man bul wax ak man yàgg naa ko fay wax man ñaari nit dama seetaan te dëggu moo ma gënal téeméeri junne doomu aadama di ma seetaan te dëgguñ amul njëriñ waaw loolu nag laa ne woon naa ko wax fii di leen wax ne yéen ñi nga xam ne yéenay jël secret di ko def. maa ngi ñaanal yàlla képp ku siy def secret secret yi ma joxe ndaxte bët bu set billahi wallahi wa taala nit woo ma ne ma jox nga secret sangam def naa ko gis naa ko ku def gisoo xoolaatal su bopp loolu la rek kee dafa yor séew bu set yow nga yor séew bu tilim boo leen demee si bi di duy ndox ki yor séew bu set bi ndox mu set lay am yow ma yor séew bu tilim ndox mu tilim nga am ndaxte sa séew bi moo tilim loolu kese la amul leneen luñ ciy commencé lu dul loolu maa ngi ñaan yàlla ku fi def secret te jublu si lu baax yàlla na ko yàlla faj ku si jël secret na jublu si lu bon ak wala intention bu bon boo si mënta am yàlla bu ko yàlla faj loolu la rek di ñaanal yàlla jàmm ñëpp ñëpp nañ am jàmm ñu dëng ñi yeneen yàlla jubal ñu jub ñi yeneen yàlla gën a jubal ñu nekk si jafe-jafe yàlla génnee leen si ñi bëgg wërsëg yàlla may ko ñu bëgg kaaraange yàlla may leen ko dafa ñu gudd fan ak wér ñu ñëpp incha allahu taala waaw kon nag tey secret bi ma leen bëgg a indi tey muy jëm si secret mahabba maanaam wàllu diggante ay ci laa leen indil tey bu am solo lool bëgg ngeen bàyyi xel bu baax ndaxte vidéo yi may joxe secret yi soo ko bàyyiwul xel rek doo ko mën a def kon boo dégloo danga nga comprendre secret bi am na solo lool te jafewul ni ngeen ko gisee ni ngeen koy bindee dangeen ngeen di def kon bisimilah rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbi wa sallama tasliman nga teg ci carré bi carré bi da koy bind benn yoon dégg nga boo xoolee si biir maa ngi si def wa alqaytu alayka mahabbatan minni si ñetti côté yi mais boo xoolee maa ngi def ay bind yu xonq si français S ak T fépp foo gis es def fa turu nikk nga bëgg maanaam day tekk son nom S mooy son dégg nga T bi mooy ton ton bi mooy yow léegi bu fuñ foo gis ma def fa T def fa sa tur ak sa turu yaay yow may waxal foo gis ma def T def fa sa tur ak sa yaay foo gis ma def es def fa turu nit ki ak turu yaayam yaakaar naa leer na bu ma kenn woon ak di ma laaj naa ma fan la ñuy def tur beeg yooyu maa ngi koy expliquer fi mu leer fi ma def es S am na si boo xam ne mi ngi mel ni Z moo moo nekk si ruq bi noonu si kaw mais S la dégg nga S bi yow mi nga xam ne si ni yow yaa bëgg ci keneen mu ñëw si yow wala nga bëgg a ak moom si jàmm wala nga bëgg a dund ak moom si mbëggeel bindal turu kooku muy ese bi léegi nag fi nga xam ne bind naa fa tee bind fa yow sa tur yow yow may waxal bind fa sa tur ak sa turu yaay fi nekkaat es bind fa turu ndikk ak turu yaayam fi nekkaat tee bind fa sa tur ak sa turu yaay noonu ngay def ba fi ma def yu rouge yëpp jeex su ko defee lii da nga koy bind ñaari yoon benn bi da koy ëw nga takk ko beneen bi nag da koy jël nga def ko saafara def bu yem def si parfum bu neex mu ngi see def ñetti parfum yu amul alcool muy misk bind soudan ak dunia wala wala wala basmala wala yu demee noonu daal parfum yooyu dégg nga ko defee incha allah nga koy parfum bu ko defee incha allahu rabi yàlla dana dimbale soo mënee itam di wér de wàll xeetu alek maa bu teen min nii baax na dégg nga wàll maa bu teen min nii wàll xeetu bu teen min nii baax na lool su ko defee nga koy wér de moom it bu dee mu nga ko def juróom-ñaar baax na fukki yoon ak ñeent baax na. dégg nga incha allah kon nag tey lii leen indi indiloon incha allah di leen di ñaanal jàmm di sàkku seen ngeen ñaanal ñu di leen di wax barakallahu fiikum jazaakallahu xeer nekk leen si jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.